قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة bon euh, tey dafa am leen li xam ne moom laa bëgg ñu gën a ñu waxtaanee ko ndax euh, dañuy wax ni ngir mu ne ci pénc mi laaj nañu toog waxtaanee ko euh, yaatal ko laayante ci biir tey euh, umpalewu leen tey yaa ngeen gis ci Facebook bi ñu bëri bind euh, di wax ni imaam Ndao imaam Alioune Badara Ndao euh, dafa xaw a tawat donc macha allah ñu bëri bind nañ ko seen ay page ndeysaan ñu bëri di ko ñaanal yàlla di ko massawu di ko massawu ay mbokkam donc yàlla def na tawféex nag alhamdulilah ñu jot nañ dem ziyaare ji ko dem xool ci lu mu ne Euh, seet njaboot gi euh, seet euh, taalibe yi donc seq ak ñoom ay waxtaan yu bëri bëri ci loolu sax la ñu ak andi benn waxtaan bu ndaw bi nga xam ne wax dëgg yàlla dina am solo ba nit yi bàyyi ko xel su may wax toujours ci imam ndaw léeg-léeg sax dafay dafa yara xaale sentimentalisme ndax moom dafa bokk si nga xam ne man dama ko jàppee bu dee kilifa diine war na am ndax euh, diine bi wax dëgg yàlla euh, benn kilifa la am te leeral nañu moom mooy kan euh, sant nañu digal nañu tere nañu jàngal nañu waaye bu amee rôle bu ñuy wax kilifa diine donc fii Sénégal bu amoon ñaar wala ñett ñu ko war a jox kenn ki damay wax à coup sûr imam Alioune ndaw Ndao la lu tax ma wax ko néew na nga gis imam bi nga xam ne xam na xam-xamu zahir yi xam ne moom la ñu soxla ci imam xam alquran xam hadis xam fiq xam mbooleem ni science élémentaire yi ñoom naxwu ñoom yooyu yëpp nga xam ne vraiment nit ki def ko soxla ce sont des moyens pour arriver à déchiffrer à décoder la vérité waaye imam dëgg ci siècle bi ñu nekk warul yem ci xam-xamu zahir yo war warul yem ci xam téere wala jàng arab wala xam alquran wala xam hadis imaam boobu daf ci war a boole xam lan mooy géopolitique xam lan mooy relation internationale xam technologie fan la toll xam droit euh, xam politique donc lii yëpp wax dëgg yàlla ay ay jumtukaay la yoo xam ne jamono bi imaam bu ko amul wax dëgg yàlla dina jafe mu war a leeralal jullit ñi lan moo war a nekk seen taxawaay ndax loolu wax dëgg yàlla rôle imaam la. waaye ñaari kese doyul ci imam ñetteelam dafa war a ànd ak maandu jub ragal yàlla ak dëggu dëggu buy tax mu mën a wax dëgg te yàlla tax bañ ak di xaaj ak seen ñett yi nag laa wax sooy xool suñu mu daje fii ci biir réew mi euh, imam Alioune Badara ndaw euh, mooy nekk tête de donc kon ñun dañoo am taw féexu am ki nga xam ne euh, man dama jàpp ni dëkk bu ne Euh, am na ay révolutionnaire am ak ay figure ñun kenn suñu figure yooyu ba mu tudd imam Alioune Badara Ndao kooku nag nga xam ne jamono bii ñu bëri fii ñu yeewu yeewu ci nouvelle ordre mondial yeewu sur la franc-maçonnerie internationale yeewu si euh, le réveil des peuples yeewu sur cette relation inégale inégalitaire entre ñum ak l'Occident yeewu ci rôle jeunesse par rapport au changement wala à la refondation de son pays yeewu yëpp wax dëgg yàlla euh, Imam Alioune Badara ndaw dafa am lu bëri lu mu ci joué fii en tout cas ci biir réew mi donc euh, du kon moomeelu famille am kese du moomeelu euh, askanam kese waaye moomeelu réew mi yëpp la Imam Alioune Badara Ndao boobu nag moo feebar ba mu feebaree. mbokkam jub nañu taxaw wax dëgg yàlla dem nañu fi ñu war a dem jaar nañu fu ñu war a jaar waaye dafa fekk ne dañoo nekk ci dëkk bi nga xam ne dëkk bu méttee dund la ndax euh, man personnellement dama bokk ci ñu gëm ne bëri na fi ay hôpitaux yi nga xam ne euh, yenn figure révolutionnaire yu ñu am ci diine bi bañ fa jaaree après am nañu ay jafe-jafe accusé wu ma leen nag wax ma ni ñoom ñoo leen fàggaagal waaye damay wax ne ku am jàmbaar bi nga xam ne lu ñuy wax euh, le système wala boog le nouvel ordre mondial euh, moom daf koy teg baaraam di ko wane di ko leeral kooku fépp système boobu euh, am ay tentacule war nañu éviter yóbbu ko fa pour mën ko sàmm pour mën ko aar ndax dañoo am devoir tamit de protéger nos héros te Imam Alioune Badara Ndao kenn de suñu héros li gën a grave nag mooy bu dee dañoo dem ba dugg dans le système euh, hospitalier normal ba ñuy wax waxu dañ ko war a yóbbu génnee ko réew mi euh, di xalaat ay réew yu mel ni ay France loolu dafay nekk nag beneen jafe-jafe bu ñu xamee moom taxawaayam ci combat bi ñu nekk aujourd'hui sur la franc-maçonnerie internationale sur le Grand Orient de France kooku wax dëgg yàlla yenn dëkk yi waruñu xalaat ko yóbbu ko fa. yenn nit ñi waruñu xalaat jëmbal leen ko ko donc ci loolu nag moo taxoon ma ne dinaa attirer attention ndax xam naa ni état bokk na si nga xam ne dañ ko sonal bokk na si ñi nga xam ne wax dëgg yàlla mu ngi fexe xool nu mu leen jéem a fàggaagalee man gëm naa ni imam Alioune dala ndaw mii kenn la si ñooñu kenn la si ñi nga xam ne boo demoon fare ci France seen service yi xam ne ñooy fichier ñëpp ñi nga xam ne qui sont hostiles à la politique étrangère la de la France di nga fekk turu imam ba Badara ndaw mu ngi foofu ci ci ci fichier wu France boobu donc kon nit la bi nga xam ne war dañ koo sakkanal ñu suy bopp war dañ koo sàmm euh, may may leeral nag ne beaucoup de gens yi xam ne amal na leen ay jafe-jafe France bi nga tudd léegi nii yéen ñëpp a ngi fàttaliku kaawu Yasser Arafat Yasser Arafat euh, wax dëgg yàlla ba muy dem France à l'hôpital militaire euh, ñu bëri dañu gëm ni foofu lañ ko reyee yaayu autopsie buñ def plus de dix ans après mu génnee àdduna defal autopsie xool euh, yaramam xool ay yëreem waaye gis nañ ni y avait du polonium 210 ñuy wax polonium 210 donc euh, macha allah lu ñu lu ñu war a bàyyi xel la que euh, ñenn ñu bëri aujourd'hui fii ci Sénégal xam naa fi ñu bëri ñi xam ne jarul may tudd seen ay tur waaye ay figure l'islam yi xam ne am na si ñenn ñi nga xam ne ba ñu demee ba dugg si yenn service hospitalier yii faagaagal nañ leen ba nga xam ne seen yaram moomatuñ ko euh, dox bu baax sax léegi moomatuñ ko wax correctement mënatuñ ko waaye am na ñeen ñi xam ne purement et simplement da leen éliminer dee nañu dee bu yomb bi nga xam ne euh, malheureusement notre culture de musulman yu nangu chaque fois ne ah yàlla dogalu yàlla ah yàllaa ko dogal de wax dëgg yàlla te yàlla macha allah ku baax la woon fekk euh, am na beaucoup de choses yoo xam ne damay wax ne ce sont des assassinats yoo xam am ci dëkk bi ñëpp xam nañu euh, il y a des cellules qui travaillent dans ce pays di jéem a xool du ñu rayee yenn autorité yi di vraiment du c'est que c'est pas quelque chose de nouveau dans ce pays donc euh, instant yi nag Imam Alioune Badara Ndao mu ngi si loxo système hospitalier sénégalais bi accusé moo benn médecin waaye dama wax rek ne euh, ku mel noonu su nekkee ci loxo ay nit war nañoo xam loxo kan la nekk war dañoo xam kan moo koy suivre war nañu xam yan anesthésiste ñooy liggéey ci moom war nañu xam yan ñooy équipe yi xam ne ñooy tourner autour de lui ndax il faut rien négliger avec ceux yi xam ne wax dëgg yàlla euh, ñoom ñooy euh, doolewu dajjaal ci kaw suuf encore que hôpital boobu mu nekk am na benn kuréel bi nga xam ne kuréel boobu mën xam naa bu baax euh, ay franc-maçon lañu benn ordre bi nga xam ne mu ngi fii Sénégal seen base mu ngi fii Gorée ordre bi nga xam ne mu ngi liggéey si ay hôpitaux sénégalais yu bëri surtout hôpital boobu mu nekk euh, tab di tabax ay localité di jënd ay ambulance yi maye di may ay congrès euh, yenn médecins yi leen jox yenn yenn bourses jumtukaay yi di leen seen yenn étudiants yi di leen kaaseel euh, ñenn si ñoom ba leen dimbali ci wàllu koom-koom ñun dañuy dem sax bay recruter yenn ñi nga xam ne ci yenn médecins yenn professeurs yu mag yi donc euh, ñooñu nag bu dee ils ak acquis à la cause maçonnique euh, su imam Alioune Badara Ndao tàbbee seen ay loxo man j'imagine et je m'attends au pire donc euh, au pire ah donc macha allah damay leeral nag damay leeral parce que foog état bi xam que yi muy lijjanti ak yi muy jéem yëpp ñun ñu ngi ciy bàyyi xel te ñu ngi koy ñu ngi koy xaar boobu ba léegi nag nga xam ne mu ngi tëdd. ay mbokkam ñu ngi jot ay ay ay ay ay ay offre am na ñenn ñi xam ne ñu mel ni ñu nekk ci nguur gi wax dëgg yàlla du ñàq di jéem a approché di jéem a wax ni dañu bëgg aider dañoo bëgg jàppale dañoo bëgg nàngam man gëw ma ni euh, Macky sàll wala ay ñoñam wala soxnaam ñoo war a jàppale Imam Ndao ma loolu gëw ma ko dama bokk si ñu gëm ni Imam Alioune Badara Ndao ñun lay xeexal ma loolu laa gëm dama gëm ni ñun lay xeexal dama gëm ni ñun ñoo tax muy sonn daa iman ñun ñoo tax ñu tëj ko ñun ñoo tax dundam gi ba ci daaraam bi lépp mu waroon mu waroon doxee mu tardé maanaam nekk au service de son di éveiller di conscientiser di partager di éduquer lii mooy dund imam ma Badara Ndao te lii nag bépp jafe-jafe bu mu am wala bépp gàllankoor bi xam ne am na ko man jàpp naa ne ñun ñii ñoo war a jaayante ñoo war a góor góorlu ñoo ko war a taxaw ndax même ay dara ndaw du am ay badara ndaw ay mbokkam ay mbokkam war ñu yëg dañoo wéet suñu gisee ni imaam ndaw am na ay jafe-jafe wala am na jàngoro ñun ñoo war a cotiser wu comme ni ñuy cotiser wu ci lu bëree bëri gisuma ko gën a yell cotisation yi am ay badara ndaw wax dëgg yàlla gisuma ko man Sénégal man dama gëm ne ni ñuy sonnee ci taxaw ci wàllu alquran di defar ay ay ay concours alquran di génnee ay centaine de millions pour récompenser ndongo daara yi jàngal alxuraan noonu la ñu war a góorloo sonn ci ay centaine de millions même bu dee milliards la daf ñu ko war a jaral pour ñu taxaw imam Alioune Badara Ndao xam lu tax parce que dafay former ay nit ñu jàng alxuraan c'est des et des centaines wala des milliers de jeunes yi nga xam ne mokkal nañu alxuraan tey ci loxo imam Alioune Badara Ndao lañ jaar muy benn ñaar moom dafa bokk si nga xam ne ñu ngi dundal alxuraan boobu ndax yonent bi sallallahu alayhi li imam Alioune Badara Ndao nekkee ñii ci loolu la sam nekkoon ci digle lu baax ndax ñun suñu suñu askan maanaam umma yoon ci àll Muhammad sallallahu alayhi dañ ko tàgg si ñaari mbir al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar maanaam digle lu baax ak tere bi nga xam ne c'est blâmable imam Alioune Badara Ndao chaque jour ci lii la nekk mu ngi digle lu baax mu ngi fàttali mu ngi xeex lu ñaaw te bon mu ngi mu ngi mu ngi sonn mu ngi sonn ci askan wi wax dëgg yàlla euh, lii waa Mali am ci imam Dicko ñun am nañu lu raw imam Dicko fii Sénégal euh, ndax am nañu kenn ku mel ni imam Alioune Badara Ndao am nañ ñoom Pa euh, Alaaji Ibrahima Dramé am na ñoom Rafaay Mbacke am nañu ay imam yi xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi taxaw nekk ay avant-gardiste di sonn Euh, wax dëgg yàlla pour taxawu askat wi lii nag man jàpp naa ni euh, épreuve la bu ñu yàlla jox li di xool suñu dëkku di xool suñu ngor nga fam li xam ne ngor la c'est la gratitude maanaam kuy sonn pour yow nga taxaw fas yéene sonn pour moom donc ñun nag wax dëgg yàlla euh, balaa ñu ci woowaa Sénégal vidéo bi da ko war a ñaari mbir kese la un attirer attention wu état ñu xam ne Imam Ndao c'est un patrimoine mondial bi nga xam ne umma bi moo ko moom lépp li nga xam ne mooy idée yu doy waar yooyu nga xam ne yàgg na dox ci biir aalam bi ñu koy sonnalee nit yi nga xam ne ay jàmbaar lañu di ko jéem a fàggaagalee ñi nga xam ne dañuy yeete di jéem a posone ak di ak di ak di ak di rey à petit feu ñi nga xam ne ay alerteur lañu ak ay ak ay xeexkat lañu ngi xamal état bi ni imam Alioune Badara ndaw euh, bokkul suñu war a fàggaagal te lenn lu ko mënti jot ko lu ko mënti xuri nous serons responsables directement euh, structure bu nekk muy institution bu nekk ndax def nañ ko gis nañ ko man gis naa ko tey alhamdulilah euh, institution bu nekk ñëpp ñi nga xam ne dossier bi seen loxo jaar na si mu les tiendrons nous les allah pour responsable lii moom vraiment dina euh, dina nekk lu leer ci boppu état bi mu bañ a andil problème ay liggéeykat muy benn waaye ñaar bu mooy ñun sénégalais yi nañu jukk taxaw taxawu imam ma Badara Ndao euh, taxawu ay bokkam waaw ñoom Ndiaye Serena ñëpp maa ngi gis ñëpp macha allah euh, dëkk yi ngeen wax yëpp ñun xam naa ne suba il faut ñu tànn ci incha allah benn moo xam euh, dëkku Orient ba la moo xam ñoom Turquie la wala dëkku arabe yi la moo xam Europe la moo xam Allemagne la ak fu mu mënti doon incha allah bi donc on nu nañ ci taxaw incha allah tànn te dama jàpp ni nit yi pare. dañu pare pour jéem a taxawu ci ay ñaan ci dogg ci alal euh, euh, ki nga xam ne mooy Yohane Aïbadara Ndao li daal bokkoon na ci li nga xam ne man jàppoon naa ni euh, lu ñu war a waxtaanee tey la incha allah rabbi c'est vrai que c'est pas facile depuis semaine bi yëpp dañ ko téyewoon comme information ñoom communiqué wu ñu si woon famille am boobu léegi di xaar ne incha allah situation dina amélioré wu. Euh, ba mu ñëwee fii à Dakar macha allah euh, am na première soin yu mu am euh, am na taxaw bu mu am am na lu lu ci nekk li nga xam ne jarul ñu koy waxtaanee fii ci pénc ndax c' est quelque chose bi nga xam ne c' est intime et c' secret waaye lu ci mënti am daal mooy ñu xam ne kenn la si jàmbaar yi nga xam ne un ñun duñu nangu ñu yóbbu ko France loolu moom dèjà dama bëgg mu nekk lu leer rek ndax am na ñu bëri ñi nga xam ne. li euh, ñu commencé dox pour jéem a wax famille am kaay ñu yóbbu ko France taxawu ko ñu ngi d'accord mu dem France incha allah ndax euh, combat wu imam assan imam maa imam Assane imam Alioune Badara Ndao combat dama ragal ne bu ñu ko yóbbee France lañ koy war ñun war nañ ko bu ñu seetaanee ñu yóbbu ko France nañ ko bu fa yeewoo gis boppam biir France wax dëgg yàlla dina am jàqare ak métit euh, ndax ñun France boobu fi mu jaar ak yenn yeetekat yëpp ñun xam nañ ko xam nañ sax léeg-léeg. duñu ñemee sax rey euh, nit ki waaye su loxo dellooyee légume lay nekk maanaam nit ki bee xam ne du amati benn njëriñ du mënti dara ah, loolu yéenew ñu ko imam te imam lebaluñu loolu donc incha allah dañu taxaw sàmm léegi nag euh, dèjà euh, am na ñenn ñi nga xam ne tey jii yëglu nañ am na si nga ne waxtaan nañ ci macha allah pour xool yeneen dëkk incha allah rabi daal ñu ngi taxaw ci tànk te jàpp naa ne semaine bi incha allah lépp war naa yemb donc daal bokk na ci li nga xam ne tey jàppoon naa ne bëggoon naa ñu waxtaan ci Euh, bëggoon naa andi ci ay leeral pour euh, nit yi xamee ko noonu euh, nit yi préparé déjà di ko ñaanal ndax dafa yelloo ñu ñaanal ko yonent sa saasam dafa jàngale woon ne jullit ñi ay mbokk lañu sa mbokk da nga koy ñaanal bu amee ay jafe koy ñaanal bu amee lu ko métti imaam lépp lu ko métti daf ñuy métti ñun ndax si ñun lay xëy si lay gont man chaque fois ma wax ne moom bokk na si ñi nga xam ne wala moom mooy ki nga xamante ne moo tax lépp lu ma waroon wax si ànd sàmm ci yi sax du ko wax si ànd sàmm jikko yi lépp lu ma waroon sànni xeer man ci ànd sàmm jikko yi du ma ko def ngir moom ngir taxawaayam donc euh, ndax xam naa taxawaay bu mu am xam naa euh, dayo bu mu ci am xam naa ni muy xeexee dëgg xam naa ni muy xeexee pour njub xam naa ni mu maandoo donc euh, nit la bi nga xam ne wax dëgg yàlla nit la bu ma affectionné trop te xam naa ni ma mel ci moom noonu la waa Sénégal yëpp mel ci moom ndax imam Alioune Badara ndaw ci xolu waa Sénégal la nekk donc euh, lii daal mooy li nga xam ne macha allah bëggoon naa ñu partagé ko xaw ma nag comment les gens vont se débrouiller euh, incha allah kon tagu ay njabootam euh, doomam jarbaatam taalibe mi yor naa ko su leen bëggee après nañ ko partagé incha allah bi donc organisez vous na waa daayira bi organisé wu dëgg-dëgg wax dëgg yàlla. donc maa ngi gis gars yi ñu ngi tàggee ñoom Hannibal ñoom macha allah ñoom ay jàmbaar lañ ñuy xam ne euh, ñu am yitte lañ man jàpp naa ne ñun ñoo war a sonn euh, taxawu imam incha allah bi donc euh, yàlla ñu yàlla defal sutura defal ñu yiw defal ñu tawfiix incha allah rabbi ba imam yàlla yëkkati ko dellu ko sagum may ko wér ak wér bu dellu ci daaraam mën a ko ne jàngal ay nongom pare ku nañu jox ay analyse euh, ci géopolitique mondial ak ci géopolitique lu laal euh, islam ndax euh, islam soxla na ay keno yu mel ni am Alioune Badara Ndao donc macha allah du ma guddal nag xam naa ni tey guddi naa pare gars yi neen suba sax suba lañ la ñuy liggéey suba incha allah man dinaa fa dellu bi isnillahi wa quwwatihi donc bëgguma laa laaj laaj nag dërëm ndax man xam naa ne am naa yëpp bonne volonté yi xam ne ay benn nit kese mën a jël en mboole mboolee mi euh, frais imaam yi incha allah rabbi euh, dinaa dinañ xaar fii rek suba wala gannaaw suba ma ñu am lu leer ci beneen dëkk bu uteeg France ba parce que ñun ñu ngi bëgg a dox loolu incha allah rabbi yàlla may euh, loolu sotti te antu incha allah rabbi ba mu dem ak jàmm moom ak njabootam moom ak ñu ko war a taxawu incha allah rabbi ndax ñun on a besoin de imam Alioune Badara Ndao incha allah rabbi on a besoin de lui waaw wax dëgg yàlla donc barakallahu fikum di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen balu ak euh, guddi na euh, guddi na trop te wax dëgg yàlla yéen it macha allah kenn amul seen fay bu leen ko fas signaan déjà euh, te surtout soyons aux aguets maanaam nañu taxaw temm bañ ko bàyyee ak ay noonam ndax noon yi ñuy leeral moom di ñu ko jàngal ñooñu am na si nga xam ne ñu ngi si hôpitaux yi dans les dans les grands si hôpitaux yi y a de très grands maçons qui y travaillent Ces maçons-là sont dans l'administration, ils sont daal les hôpitaux, ils sont dans de grands cercles de prise décision yi xam ne wax dëgg yàlla ñu am kàttan la ñoom doole euh, ñu wax dëgg yàlla su suñu moytuwul rek teelu ñu artu dañ jéem a am taxawaay si moom te loolu su boobaa wax dëgg yàlla ñu ngi war ñu ko baax suñu bopp donc euh, macha allah yàlla na yàlla doole sutura incha allah rabbi donc euh, salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu qul maa inda allahi xayrun min allahwi wa min attijaara